saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa waa CCA di commission centrale des arbitres ak grève ba ñu sumb mbooleem arbitre yi nekk ci réew mi sumb nañu ab grève ngir fas yéene jàkkaarloog CNG commission centrale des arbitres ba Sitor Ndour jiite ñoo fas yéene weñ seen loxo jàkkaarloog CNG ñàkkanteeg ñoom ba mu saf-saf mbooleem lu leen naqari ba ñuy dem grève rek wax nañ ko ci journal sunu làmb bi le ñoom ñooñee di arbitre làmb yi week benn arbitre buy ñu taxawal CNG 2014 ba léegi mësu fee xew guléet la wax ay arbitre lamb yuy grève lan moo leen naqari ba ngeen di dem grève ñu ne bari bi ci njëkk ñu ne liñ ñuy fay matul dara ñaareel ba bëgg nañ police d'assurance ñetteel ba ñu wax risque yaag coono yi jànkonteel moom ba mu tàmbalee ca jafe-jafe ya dafa xam le ñetti kooru arbitre yépp ami jafe-jafe muy arbitre yi nekk ci région yi di arbitre yi nekk au niveau national di arbitre yi nekk au niveau dee seen tenue yi ñuy sol muy blouson yi ku ci nekk da ngay fay 75000 ngir mën caa am leneen la leen naqari mooy yokku nañ nombre combat te yokkuñu seen i indemnité léegi fukki combat la am par te indemnité yooyu yokkuwul bu dee lit sans frappe ak li combat di bari bari 70000 francs lañ leen di séddale bu dee Adrien Senghor ba day jël 10000 corps médical jël 10000 yeneen 10000 ya des ci poste la jëm cotiser daal di dugg taxi heure bi lamb ji di jeex des dañuy am problème la leen di yóbbu bu dee ci région yi moom lu gën a pire loolu moo fa am ñoom arbitre yi fare ci région yi situation bu méttee métti la ñuy dund beneen bi mooy li xewoon keroog diggante Alioune Seye ak ñàkk jariñu rek mat na misaal loolee wone na ne arbitre yi nekk ñu benn yoon ci sécurité moo tax ñun fu ñu toll di revendiquer police d'assurance mboolem xeetu ñaxtu yi yépp nag wax waaye d'accord ñu ngir régler ko CNG moo ne clairement tax ñu fas yéene banque suñu loxo lànk ba tëdd ca ñag ba ne duñu arbitrer Balla tuuti rax ca dooli moom Balla Gaye maa ngi doog a xam li waral arbitre di yàq combat yi nekkul teye waaye situation bu metti la ndax nit ki mënoo nekk ci ay conditions yu bon ba noppi di def sa liggéey na mu ware beneen ba mooy àq mbëri dafa mel ni moo leen di dal ndax mbooleem li ñuy dagg mbëri la ci ëpp ci avertissement lay jóge arbitre ñooy avertir mbëri te la daggee ca mbëree du dugg ci poste arbitre li ni mel war nañ cee taxaw ca na mu gën a gaawee journal ba xam le ne bi les grève daal dana laal leen menacé ba ci njëkk diggante ñagas ak caatuwaalo ba war a beneen bi war am ci samedi bi ca Bargny diggante diggante Ousmane ak Pape Thiam naka lay demee ci même dimanche bi ca Bargny diggante Badou Fall ak Libidor 2 naka lay demee ci même dimanche bi ci arène diggante Tigo xaritu yaayam ak Boy Dakar naka lay demee ci même dimanche bi ca Thiès diggante Laay Goote ak Daabu Texas naka lay demee ci même dimanche bi ci Adrien Senghor te waa fans club Mbayang tëgg ko naka lay demee mboolem lamb yiñ bi ci